tey dinaa wàcc ndigal lu ma président waxoon mm. ndaxte ci at we ñu weesu mm-hmm. yi muy def nii daf ko doon def mm-hmm. xëy di ŋàññi di xarab mm-hmm. di wax wax ju ñaaw di ko teg ci kaw nit ñi di ko teg ci kaw président di ko teg ci kaw ñi président àndal Idrissa yow jàpp nga ni war nañu traité d'incompétent et de corrompu loolu la wax waaw c'est un c'est un pouvoir corrompu et mhm. incompétent waaw wax na ko Idrissa fàtte na ni mhm. moo doon dagg garab yi Thiès ci mhm. téeméeri junni par garab Idrissa sa na ni moom la ab Ablaye Wade joxoon quarante six milliards mu yemale ko ci voie de contournement si yaa ko sedde Idrissa fàtte na ni moo am dix neuf comptes bancaires France bu ci nekk ma mën laa ci sa émission lañ ko waxee boobaak léegi weddiwu ko waaw jaaxal na lu tax weddiwu ko. non mënu koo weddi parce que mm-hmm. dañoo génne numéro compte génn ay chèques yu mu ci fayee. Mm-hmm. commencé woon ak moom suñu kilifa ni ñu bàyyi leen ko bu leen ko topp dem leen liggéey. Mm-hmm. tey commencé waat na. dinañ eggale histoire bi. c'est que gis nga nit. bu la nguur jaralee wax lu dul dëgg. pour jot ci matoo njiit. wax na lu dul dëgg. luubal na pour am nguur goreedi na pour am nguur bakkanu nit sax teg na ko pour am nguur ak xaalis dinaa ñëw man ragaluma li may wax mm. man du ma jiñ kenn mais jàpp naa ni munoo luubal xaalisu sénégalais ki ko jiiñ mu ngi ci beneen liste dina ñëw ci ñoom ñaar liñ seqoon mm-hmm. moom moo waxoon Ablaye Wade papaam la mën na ko tër xar rey ko tey Ablaye mm-hmm. Wade ngi jaar ci liste mu tey mi ngi jaar feneen mm-hmm. donc wax na lu amul moom moo waxoon du mës a àndatee ak waat Wade fekk Ablaye moom moo waxoon ni que ci seen rajo seen rajo la ko waxoon. Mhm. maa jël xaalis bi xaalis bi xaalisu sénégalais ya ko moom dama koy denc ba Ablaye Wade jóge fi boobaak léegi ko gis Idrissa delloo si xaalis. Mhm. Idrissa ban liggéey nga ko xamal. consultant la. consultant wu la. ah ci lépp rek en ah, beaucoup de choses. Idrissa non déedéet nañu waxante dëgg. consultant rek dafa yomb ban lan mooy métier Idrissa. financier la. financier fan. ban di école la diplôme moo tax ba mu sës léegi waaw déedéet. ba mu ko métier. ñetti liggéey nga ko mën a mas a xamal. Mhm. ministre du directeur de cabinet mhm. premier ministre. waaw ah. waaw Idrissa ba jógee ci nguur gi ak léegi. Mhm. Euh, fukki at Saint-James lay dal Paris. waaw hôtel boo xam ni nekk suite yow muy jël 1000 euros par jour téeméeri junni ak fanweer ak juróom ci ku xëyul. ma dama am ay xarit euh, des amis qui l'aident xaaral rek. nañu waxante dëgg buñ naxante kooku mooy wax ni que ñun tey one est des corrompus kii wax ni que tey ñun ay corrompus lañ kooku moo am benn jigéen bu sësoon rëkk ci moom feebar bu ñàkk fayda rey ko ci ñaari fan kon li may wax nii déglu ma man li may wax mën naa ci ñëw bu laajee bu weddee rek ma génne firnde bi xaalisu ndaw soosu jóge Dubaï fekki xaalisam ci Amérique 14 millions d'euros 14 million de dollars Idrissa war naa wax maama li nga wax rëy na di. Eh, bu rëyul bu weddee. maa ko wax sénégalais yi bu weddee gannaaw suba ma génnee transfert d' argent bi code transfert bi. ah foo jëlee loolu yow. na weddi fi ma koy jëlee amul solo mais c'est que donc mënoo nekk ci loo xam ni neexul yàlla neexul yonent bi. ah ménguwul ak diine ménguwul ak yoon ba pare di xas nit ñi naan leen ay incompétent ngeen. 46 milliards la dugal Thiès ñu woo ko mun a wax fan la jegul xaalis bi ki ko doon laaj mi ngi fii Abdoulaye Wade la tudd. Mhm. ki ñu doon teeru bër ki démb. tey Idrissa war na wax ni que ñun on est incompétent Idrissa lan la proposé Sénégalais yi bu demee assemblée naan leen 2024 seen dëkk dina Idrissa du royukaay ci xale yi mënoo ñëw jiite jubati mu am firnde. Mhm. musul weddi ni ko jëlul xaalis. mosul weddi ni ko dencul xaalis bi mënoonoo jiite goree ji ak li ko ab Ablaye Wade wax yépp après moom moo delloo ban saaga bu ñaaw la Idrissa saagawul Abdoulaye Wade tey moom mu nekk ci liste naan ñun one est incompétent tey moom mu nekk ci liste naan ñun ay ay on est des corrupteurs moom mooy corrupteur bu mag bi mais mais xam nga Mamba yow am nga benn histoire xam nga ku alal ah. jaral mm. bakkan mais bakkan boobu laa bëgg xam lan la. bakkan foo ko teg wala wala day wax ni rek pour la forme nii bu mm. ma génne tuuru ndaw si. génne tout certificat de décès ndaw si génne transaction bi na weddi. kon yow da nga may ma ni li ma wax leer na ma ni. am na ku ko am na ku ko jege woon. pour wan ni que gis nga dafa am benn borom xam-xam bu ni. Hmm. nguur warul la jaral nit ñett yi. Hmm. yàlla moo koy joxe. Hmm. jarta jaay sa ngor jaay na ngorom parce que taxaw na man li ma bëgg a laaj dinaa la ko man nii mas naa nekk ak moom. yoo koy mooy sa mentor politique. man mii moo politiquement moo la créé man mii 2003 2004 musuma créé ba may nekk ci moom man ak sama ñetti moroom ñoo fa nekkoon man Abdou Souley ki jëra Yankhoba Diattara mm-hmm. bokk ci ñi créé Fidèle. Mm-hmm. créé parti ni ko bàyyil nga ñëw. lam gëmloo woon. Sénégalais waaw mais déglu ma waaw xaaral rek. lam gëmloo woon Sénégalais yëpp. Mm. laa gëmoon. Mm. maa la mën a wax ni maa ko fan woon kañ laa bàyyi Idrissa bés ba mu ñëwee nii parce que moo ko waxoon. Mm. ay firnde am ci retrouver Abdoulaye Wade serait une double abomination politique et morale mu ni goree di lay doon ci politique goree di lay doon ci jikko bañ koy xam fekk na ñuy liggéey doon cadre di fayeeku ñu demande d'emploi mosuñoo jàppale ci dara ñu ànd ak moom mu xëy suba teel midi ñàkk kersa midi mu jubali ci ab Wade. dafa lan. ba yaa ma ko gën a xam ñu ñuy seetaan ñoo ñu ko gën a xam bés ba mu defee loolu laa ne ko li des sama giirub dund du ma ànd ak yow. yow wala ngi jël sénégalais yi seede maa ngi jël sénégalais ñi may seetaan. Mm. yàlla rek a tax may wax. Mm. Aïssatou man lu ma wax lu ma xamul parce que mm. damaa gëm juróom-benn yi. àddina dëgg la dund dëgg la. dee dëgg la loolu ñi nekk fii ñi fi toog ñëpp mën nañ ko seede mm. mais dafa am yeneen ñett yu ci tegu mm. bisu penc dëgg la aj àjjana dëgg la mm. waaye safara tamit dëgg la Idrissa Seck jarul mais wax ji moo ñaaw man dañ maa dénk ay gone dañ leen a war a yar gis nga nam ñu doon tarilee saaru alxuraan yi ñëpp ñu daw topp ko muy wor di wor di wor kan la Idrissa doon àndal démb tey ànd ak moom tey xam nga ci ñu bari mm-hmm. sénégalais xam nañ ci ñu bari. Mm-hmm. damal seeti docteur saar bu géewul mhm. demal seeti Abdou Souley Kijera demal seeti ndem si yàlla professeur bi gaañu woon ay mhm. mbokkam nga laaj leen mhm. kooku Idrissa léegi kooku mooy taxaw moom ni ñun ñii xamuñu dara Malick Gakou nekk ci ginnaawam naan ay incompétent ay corrompu Malick Gakou Malick Gakou moom bëgg ci boole moom non non déedéet Malick Gakou moom xamuloo ko dara lu garaaw non non dafa am mag ñuy fo mm. Malick Gakou day fo xam nga mooy lan mm. c'est que yenn saa yi da ngay reetaan sax mm. xam nga Malick Gakou di commencé campagne am Guédiawaye hmm. dem ba seet fu am taawu ndox ah. mu dugg fa sol ay botam di di xuus di jéem a wane ni que mbënd ah, moo fa am ba tey fa ne ñam doon waxtaanal hmm. pour bokk ak ñoom liste hmm. muy PDS avant ñu fiy jóge jamono yi ñu toll choléra lañ doon wax ci banlieue bi choléra mooy ndox mu taa ren ba déwén du ma ni lépp dañ na de mais ku waxal yàlla xam ni wàññeeku na ay satu ñi ñuy ŋàññi yëpp waxuñu sénégalais yi lan lañ leen di wax. Mhm. waxuñu sénégalais yi lan lañ leen di defal. Mhm. li ñuy wax rek mooy waaw bourse sécurité familiale yi waaw cent 300000 personnes amul njëriñ juróomi junni la. Mhm. par kii mais xaalis boobu fa la daan dugg ñii di wax nii yëpp mas nañoo toog ci nguur est-ce que defoon nañ ko. boo waxee ñu ñun la wëy ah dund bi dafa cher kilo ceeb li mu doon jar 2012 lu ko yées lay jar tey. te pourtant juróomi at tegu na ci ñun ñëpp ñu xam inflation. man bokkuma ci ñiy naan réew mi lépp a ngi dox. Mm-hmm. am na ay ndaw yu bëgg a liggéey. yu liggéeyul. Mm-hmm. am na ay sénégalais yu amul ndox bu ñu naan. am na ay sénégalais yu amul courant am na ay mm-hmm. sénégalais yu bëgg a faju jafe-jafe yooyu am na. du ma ni dund gi yokkuwul de wàññi nañ ko. mais buñ ko gënee mën a wàññi moo gën. loolu mooy dëgg waaye ku waxal yàlla xam ni sénégalais yi dul woon naan ndox. ñu ci bari am nañ ndox. ku waxal dëgg. xam ni sénégalais yi dul woon faju wàññeeku na ku waxal dëgg xam ni bépp sénégalais bu am payoor ba ci yow mii am na lu yokk sa salaire ku waxal dëgg xam ni dund gi donte liñ ci wàññee ñoom ñu ñu koy xeebal téye na ko fi ku waxal dëgg xam ni loyer bi def na ci ay effort ku wax dëgg ca yàlla tax xam ni réew mi mi ngi ci yoonu bu baax buy dem ñoom loolu lañ ni nañ leen jox majorité ñu dem assemblée ñu arrêté loolu mais lan la ñuy def